ngeen ci am Birima Ndiaye bismillah yow laay tàmbalee ndax yow da nga xawoon a xoosu euh, gaañu ci euh, mbir moomu ñu lay massawu encore une fois buuba wax na ko fii ñu koy feddali sa kanam sa kër gi ñu cong lay massawu bismillah dermes da may may ma wax ci loolu man mënu fa jàkkaarloo te waxuma ci ci waxuma ci loolu hmm. euh, nga may ma aussi ma gërëm senegal gépp hmm. parce que ci côté yëpp ñëpp woon nañ ma ànd ak man naqar bi Euh, Sénégal ñi ma woo am na ñoo xam sax ah, xaw ma woon ni ay kilifa diine yoo xam ne xaw xaw ma ni xam nañ ma waaw ci ci ci fépp nag kër Baye ñas kër Serigne Touba sama sama bokk euh, kër maam Alaaji Malick ñëpp a ma woo réew mi ñëpp woo nañ ma ànd ak man naqar bi nga xam ni daal na ma donc muy loo xam ni loolu rek euh, defal na ma parce que xaw ma woon ni quand Euh, Sénégal am na ñoo xam ne teg nañ ma teg nañ ma foofu en tout cas tax na ma xam loo xam ne xalaatuma woon ni ndax man ñi ma woo am na sëriñ yu mag yoo xam ne woon nañ ma musuma xam ne xam nañ ma donc loolu maa ngi ci sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci di ci sant di ci sant ñëpp ñi ñi ma bokk ci plateau bi mais der moo nga may wax ni man li ma gën a jaaxal Sénégal mooy man biir yi ma Ndiaye dëkk Sandiara hmm. musuma nekk ministre ci mim réew musuma nekk député ci miim réew musuma nekk directeur général ci miim réew ba ma juddee le jour de ma naissance ba bisub tey musuma gérer deniers publics bu Sénégal musuma administrer aucun Sénégalais kon man lan laa war a mën a joteeg ay nit yuy xeex ak nguur bay toj sama kër à quel titre man mënumaa décider ci réew mi mënumaa fal mënumaa folli mënumaa dindi bokkuma ci ñiy gérer Sénégal nag moom sama bopp comme yow ak keneen am sama xol fu ma neex ma far fa su ma neexee far kii su ma neexee contre kii bu problème amee sañ naa wax sama xalaat keneen wax xalaatam keneen wax xalaatam fii man rek nekk ma fi ñëpp wax seen xalaat donc lan moo indi ay nit taxaw ci ordinateur Birima Ndiaye et béréb sàngam allez le tuer sa sa famille nangam nañ taal kër Birima Ndiaye nañ def nangam nañ def nangam mais pour parce que booy xeex dara wala ngay toj dara wala ngay def nangam am nga bii booy recherché mais ñi ko doon def ba bi lañ woon recherché laa bëgg xam Sénégal yi xam ko man buñ tojoon sama kër ray ma ray samay doom lan lay régler ci problème bi qu'est-ce qu'il règle dans ce pays mënul tax Sonko ak Adji Sarr am seen problème réglé mënul tax Ousmane Sonko génn wala bu dugg kaso man mënumaa tëj Ousmane Sonko mënumaa tëj tijji Ousmane Sonko mënumaa plainte mënumaa dindi plainte c'est que je dama ci doonul en rien et je veux que les Sénégalais sachent que man du ma rakk Macky Sall bokkuñu Adama ak Awa li ma bokk ak ñëpp laa bokk ak moom du ma doomam bokkuma parteem Sénégal la dëkk am droit militer militer dans un parti politique le parti socialiste nekk associé ak Macky Sall ci Benno Bokk Yaakaar faral ko dina samay débat di défendre sa politique c'est mon droit le plus absolu dans ce pays loolu nit mën ma ko xañ ci réew mi personne et je dis bien personne je suis un sénégalais libre aw ma contuméran à aucun sénégalais su may voyage ak su may dem su may def rek su may def tant je respecte la loi j'ai pas de compte à rendre à aucun sénégalais aucun sénégalais sama dem sama dikk sama def sama dindi intéressé wu sénégalais xam nga yooyu nan nañ poser question ñu leen di administrer nañu poser question ñu jox seen réew nañ di poser question ñi leen laaj seen baat man laajuma aucun sénégalais baatam je n'ai pas demandé aucun sénégalais qui vote pour moi le plus post électif de Sénégal qui est conseil municipal je ne le veux pas je le cherche pas comme colle la paix sama yoon nekkul ci affaire yooyu te rek der naa la xam ne je moo tax jàmm am man dama tëdd sama kër à une heure du matin nit ku bokk ci ñoom woo ma téléphone télé laa wax de ne ma biri moom ma defal nga ma loo xam ne mun ma ci jëm sa kër du ma la ko wax demee réunion nañ pour taal sa kër xam ko yëg naa ko immédiatement j'ai alerté le colonel de la gendarmerie régionale de Saint-Louis maa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ak ci ni ma jàppale muy le colonel Cissé immédiatement j'ai alerté le ministre de l'intérieur ci guddi gi ñu may dégg il je le félicite aussi je le remercie il m'a beaucoup appuyé su ma meloon comme ñooñu ñi ma àndal nii ponk ñi ma àndal su ma leen bàyyi woon sama kër ak lii ñu yor ku leen sa fekk dinañ la ray mbaa nga rey leen mënoon naa ko def moo naa jël ay nervi dugal leen sama kër jox leen arme neen ku dugg kër gi di ko toj rey leen ko wala mu rey leen am naa ko ndax maa ngi ànd ak ñoom nii mais je préférais man Birima Ndiaye étant sénégalais que que sama alal yàqu que bakkan bi tuuru sama biir kër parce que soo ma fa bàyyee nit bu reyee sa sous ma responsabilité buñ ko reyee c'est sous ma te man ñaanuma yàlla ci Sénégal di dund di tuur deret ci doomu Sénégal man yaruñu ma ci loolu samay waajur rey yaruñu ma ci rey samay waajur rey ñu ci def lu bon donc j'ai préféré génne sama njaboot ma famille ak quitté la maison à cinq heures du matin kon fekk ñu fa kenn tëj kër gi bàyyi leen ko ak bàyyi ko ak ñoom mais nañu xam ni et que je prends le Sénégal en témoin def nañ ma ko benn yoon bàyyi naa mu jàll ndax bëgg jàmm ndax dawlu dawlu yàlla tere rey nit dafa araam mais prochainement képp ku dugg sama kër ne dañ koy jéem a taatu ju teew maa yor dara lu fa xew yaa ko teg sa bopp te réew mi ko teg seen bopp man sama yoon nekku ci je ci suis pas le je ne suis pas le fils de Macky Sall je ne suis pas un ministre de Macky Sall je et deuxièmement sama kër na koy tabax bi mu koy jënd gisuma Macky Sall bi ma koy tabax gisuma Macky Sall dërëmu Macky Sall tabaxu sama kër mi may dégg ba may jënd kër Sall il n'est même pas président de la du Sénégal du ma nekk nag doomu gor di liggéey di ñafe di daan sama doole di leb ci banque yi ba tabax sama kër dugal sama njaboot ay nit yu jógee fële mal intention di jaay ay vëyu lañ di dugg sama kër ni dañ ma bëgg a rey te jotee maa ñoom dara je vais pas laisser passer cette mm-hmm. affaire. ok donc je demande au Sénégal de rester calme. Mm. nous sommes un man teelaa mus sa gis ci àdduna politique un parti politique mais jàppale sa leader nga koy xeexal c'est doon droit le plus absolu non mais may gale leen mm. mais munoon da ngay xeex démocratie di xeex liberté de d'expression di xeex lobby ne dañoo dañoo complot sa leader ba pare di complot un sénégalais comme toi di di di xeex ni tax mu waxte ànd ak man mais lu Serigne tubaab amul yàlla amu ko yonent bi amu ko nit ñu baax ñi amu ko Ousmane Sonko mënu koo am ku ñëpp àndal amul ci àdduna ku ñëpp gëm amul ci àdduna ñii dañuy faral yow ñii contre la nga am idée bi kii wax lii kii wax lii c'est ça un pays démocratique loolu mooy administration noonu la ñuy doxee maintenant nga génne say idée ba convaincre nit ñi boo leen doyee ñu fal la mais yëfu banditisme yi nañu rey nit nañu wër nit nañu taal nangam j'ai vu des gens yoo xam ni c'est des ennemis de l'hôtel qui est l'hôtel Lamantin ñi ki ko doon bind c'est l'ennemi naan Alioune Sall ngi ci hôtel bi pour bëgg rek ñu dem taale hôtel yi jàmbur. te bu ko taale ña fay liggéey fu ñu jëm donc il faut rester calme. xeexalal sa leader gréwal sa leader Macky Sall nga ne ca palais ba boo bëggee nga dem jàpp ko yóbbu tojal pale ba tojal lu la neex du man maa koy réglé am nañu ko réglé ci réew mi mais sama kër ak samay bien vraiment jotewu ma ak nit ñi dara si suis un di wax sama xalaat te kenn ma tere wax sama xalaat ci réew mi saagawu ma nit toroxalu ma nit waxuma nit lu bon ñàkkuma fayda ragalu ma allez dégg nañ sa message merci merci beaucoup Birima